internet yu sans ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax am mbégte di ànd ak yéen comme niñ koy defee Euh, jamono bu nekk ci euh, tolluwaayu réew mi euh, ci waxtaane li nga xamante ni mooy def actualité waral ba tey incha allah comme ni ñu ko defee woon démb ñu àndoon ci ki nga xamante ni mooy Pape Assane Seck di taskatu xibaar tey yàlla def ñu dalal keneen koo xamante ni ku ñu xam la ci espace médiatique bi ci ay xalaatam yoo xam ni da koy partager ak ñi nga xamante ni ñooy sénégal yi di Cheikh Ousmane Touré nga xamante ne sama wërale bu yàgg la mbégte la ñu am sax Euh, ci di ko dalal ci pàcc bi nga xamante ne waxtaan la woo xam te dina ñëw incha allah euh, ci di mu gën a yaatoo ci li nga xamante ne moo fi xew ni ki démb ba jàpp tey ndax xam ngeen ni sànq ci ngoon it euh, musiba bu rëy la la ñu gis Euh, fële ca Yaraax di ab bus boo xamante ni euh, bu ñu sukkandikoo ci kàddu ministre de l'intérieur di euh, Antoine Félix Diome mi fa dem ni ki sànq ci ngoon la mu xamle mooy ni ñaar ay bakkan ñoo ca mujj rot am na juróom ñoo xam te nañ ci am ay lakk-lakk ginnaaw ay samba boy ñu wax ni juróom la ñu toll ñoo ab euh, cocktail euh, molotov dugg ca biir euh, am xëy na taxawaay yañ ci amee waral ba ñooñu it ñàkk seen bakkan muy ñaar ma wax léegi yeneen juróom yi am ci ay gaañu gaañu moom ministre de l'intérieur jàpp ne acte la boo xam te ne acte terroriste la te it nguur gi dina def kéemtalaay kàttam ngir mën a traquer ñooñu ko def jàpp leen jëbbal leen yoon loolu di ay kàddoom yoo xam te ne rot na ci dinañ ci ñëw incha allah ànd ceeg sunu gan waaye dinañ wax ci parti bu Ousmane Sonko bi nga xam ne dañu ko démb la jëpp ginnaaw ba ñu ko jàppee yóbbu ko euh, euh, euh, maanaam kaso bu sebi Kosaan mu fanaan fa Sébi Xotaan laa bëggoon wax fanaan fa guddeem bu njëkk yooyu yëpp di ay actualité nekk ci pénc mi gis nañu réaction yi nga xamante ne jur na ko ci classe politique bi nga xamante ne daanaka ñu ci ëpp ànduñu ci parti boobee nga xamante ne jot nañu ko tas ak it waa euh, maanaam euh, Pastef ñooñu ñu tas seen parti taxawaay biñ ci nar a am ci aju yooyu yëpp incha allah nañ ci ànd ak euh, sunu gan gi Cheikh Ousmane Touré maa ngi laa nuyu bu baax kilifa gi am bu baax di la dalal ci jotaay bi nu mel di la wax ni yow mom ute nga Euh, pa Assane maa la ko wax sànq démb moom dañoo amoon jafe-jafe ak moom ngir mu téye téléphone bi ni ñu ko bëggee waaye yow moom da ngaa ñëw rek wane ni da ngaa in moo tax bi ñu lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay Pa di la nuyu di nuyu internautes yi lay suivre muy sénégalais nekk ci réew mi comme ñu ci diaspora bi. waay am mbégte lool seex ak yow waxtaan wi ngir jàngat mm-hmm. actualité bi. Mm. di wax ne aussi ñu nit kontaan nañu lool ci dajeeg yo parce que yow moom yàgg nañoo am jotaay yu mel xëy na ci yeneen jamono la woon mais yàlla def na tey ñu mën koo sekk wax naa ko léegi Cheikh Ousmane la xew ca yara nga xëy na xibaar da nga ko jot comme sénégalais yëpp gis nga wax naa ko sànq ministre de l'intérieur ma nga fa woon moo gën a joxe sax ay détails ginnaaw témoins yi nga xamante ne jot nañoo wax le fa jotoon a am euh, acte terroriste la wax euh, ci ay cocktail molotov yi mu wax ni la ñu sànd ci bus bee waral mu tàkk te bu ñu waxee baat boobu di cocktail molotov lu ñu xam la miin ko ci réew mi surtout ci mm-hmm. at yi ñu génn ci manifestation yi fi daan am ak ci aju mm-hmm. yo bi nga ko jàngatee gis ko ak li ci ministre wax acte terroriste daañu leen traqué ba jot leen jàpp leen euh, lan nga jàpp ne en moo ci am d'abord maa ngi jaale ñi ci ñàkk seen ba kenn comme niñ ko waxee di euh, masawu ñi ci jëlee ay gaañu gaañu mm. euh, mais ci ci man am na tuuti gaawantu. parce que man damay gis d'habitude bu dee France wala feneen su mbir yu mel nii amee su mbir yu mel nii amee. da hmm. dégg ñu ne la tijji nañ information judiciaire le procureur sax d'habitude mooy exprimer wu ne tijji nañu information judiciaire pour acte terroriste wala pour acte isolé wala acte d'un forcené wala crime wala ainsi de suite. donc à partir de ce moment là li ñu mën a def mooy observer toog déglu les éléments de l' yan lay yan élément lay fournir yan élément de preuve hmm. parce que comme ni nga ko waxee Dakar def fi dara te ba pare kenn du la xam jafe na wax nañ ni hmm. dëkk bi am na dispositif sécuritaire bu fi nekk am na ay caméra yooyu yëpp donc ñu ngi toog déglu daal fan la yëf yi di mujj pour le moment daal foofu rek lañ ci mën a gum yam hmm. waaw wax dëgg maanaam dañ ci am daal fi ñu ci non xam nga mm. élément yi déjà enquête bi soreegul bi mu amee ak déclare ak sorti le ministre de l' intérieur bi léegi yàggagul donc élément yiñ ñu amagum ñun pour mun a apprécier bëreegul buñ ci mun a gum sori mm. waaw mm. parce que nekkul mbir bu ndaw daal dafa nekk nii ak waaw ah, xam nga mbir moo xam ne ndawul on parle d' attentat on parle d' acte terroriste sensible la nekkul lu ñuy jël à la légère Hmm. foog nit ki ciy wax yor élément yëpp yi nga xam ne moom la état bi fournir wala hmm. moom lañ teewagum nga xam ne yow dañ ci mën a joxe sa appréciation. Hmm. moo tax prudence nga ciy dawal daal ba keroog ngay xam. lan la enquête bi waaw prudence bu baax a baax a baax waaw prudence daal. waaw. parce que euh. sorti euh, sorti pour ministre bi ministre bi. mooy sorti bi mu def dès le moment bi mu accès maanaam sur la scène. donc première sortie la ñu ngi xool enquêteurs yi lan lañ gis bi euh, enquête bi lan la joxe ñaata nit ñoo ci gaañu ñaata nit ñoo ci lor ak yooyu yëpp door ci mun a prononcé wu daal. waay. ci contexte bu mu yegsee xam nga ko. di contexte boo euh. xamante ne jafe-jafe la ci ñi wotewo woo euh, bi nga xamante ne wax naa léegi ci xibaar nga xam ko démb lañu ñu ni mm-hmm. dañu ko dañu ko dañu ko tas gis nañu mm-hmm. également ñenn ci. en tout cas kilifa yu nekk ci parti bi ca Parcelles Assainies kilifa ga dañ ko mm-hmm. euh, teg loxo Maimouna Dièye mm-hmm. woolu nañu ko ñeneen ñoo xam ci parti bi ay Toussaint Manga ku mel ni mm-hmm. maître euh, Ngagne Demba Touré également ñu ngi wax ni ñu ngi koy wër euh, ci wàll wi loolu fekk si Ousmane Sonko ca kaso ba depuis nooy jàngatee mbir moomu ak naka nga koy dundee. waaw l'État poursuit projet bi xam ni. ñu bëri xamoon nañ fa lañ jëm mooy le démantèlement du parti Pastef hmm. xam nga su fekkee ni depuis un certain temps beaucoup de personnes yu bokk ci état bi dañuy génn di wax ni le président Macky Sall lim mu desal askanu Sénégal mooy démanteler Pastef maanaam parti Pastef mu tas mu ñu toll ci tas parti Pastef dañuy jàpp ni suite boobu rek moo continuer hmm. mais foog nit ñi taxaw ci dara mooy dissoudre Pastef hmm. via un décret nangu récépissé passif mais est-ce que loolu dissoudre na engagement wu sympathisant ak militant wu passif yi parce que est-ce que bi nga bi génne génnee décret na dissoudre nga passif rek yow génne nga passif ci xolu ñim nekkoon déjà loolu c'est une question bu jar a laajte oui mais loolu c'est à un autre niveau bu ñuy wax dissoudre ci taxi yi la ñu yem loo xamante ne ah, xëy na moom may sañ nga passif c'est pas encore officiel décret bi mun na mun nañ ko attaqué. Hmm. donc ñu ngi toog di déglu loolu suite bi lan lay nekk. mais justement loolu la ñu gisul en fait. li ñu gis mooy ne xëy na les partis bi di nañ ko maanaam gis nga beaucoup de gens yu la wax na la ils sont un peu allés trop vite. maanaam gaawtu hmm. nañ daal. parce que su fekkee ni yow da nga inculpé Ousmane Sonko. ci ay chef d' accusation jugé guñ ko àtte guñ ko ba ne ko. Hmm. ba wax ne effectivement hmm. fee yu ko procureur toppee moo ko def à partir de fee yooyu lañ sukkandiku pour tas parteem yow dañ ko yow dañ ko yóbbu instruction rek nga tas parteem gis nga borom xam-xam yu bëri wax la na la gaaw na munoon nañu xaar hmm. ak ah, maam ba procès bi dem jusqu'au bout ñu xool ndax juge bi dafay retenir chargé procureur euh, nu mu tudd maanaam chargé Ousmane Sonko jugé guñ ko quoi justement waaw jugé guñ ko mais li ñu gis mooy ni dafa am une machine boo xamante ne tàmbali na ma ngi def liggéeyam. waaw moom l'état moom est en de tout faire pour euh, li nga xam ne mooy parti Pastef maanaam ñu démantelé ko et loolu bettul ñu bëri ils avaient annoncé les couleurs xëy na dañu amuloon occasion propice bi maanaam Ousmane Sonko était toujours en liberté en position de force tey Ousmane Sonko est en détention jàpp nañ ne la Pastef est en position de faiblesse donc ñu ngi exécuter ñoom li ñu li nga xam ni mbébét bu ñu yàgg bëgg la état bi démantelé na Pastef bettul ñu bëri. bettul kenn mais est-ce nga am impression que ni malgré li ngay wax noonu ci démantèlement boobu Pastef également est en train de se laisser faire ndax impression boobu nga am. bon est-ce que Pastef nekkuñ di tëgg seen stratégie parce que man xawma ñoom lan mooy seen stratégie xam nga su fekkee ne yow dafa am fu xaar toujours.